Maris combat boobu noo ko gisee combat bi nag combat jàng la ko waa ku jum daanu mais nag ñu ngi ñaan yàlla yàlla may Lac Rose ndam si barke Serigne Saliou ndax xam naa day daan incha allah rabi yi kon si kanam Lac Rose incha allah Lac Rose dina ko defaraat dina ko defaraat cur boo yi nekk fi di am ni ni ñuy wax dina leen wan na xoolal mafia bi ku si bokkul Serge da lay waaw mais kontaan rek waa 2S kontaan bu baax a baax parce que tey làmb ji moom ku ne xam na ne man Jurbel ah lu fi xew lu nekk dama war a ñëw parce que fii la ñu am te ndara ngi ci poos wax dëgg yàlla Papa Ndiaye promoteur di sama xarit dëgg làmb ji mais nag tudde ko sama xarit muy sëriñ vraiment tey suñu xol sedd na bu baax a baax a baax suñu xol sedd na. di ñaanal ñëpp diggante sa ak euh, Magi Mangara mooy diggante Maysa ak Birima Mangara parce Magi dafa ñëw bëgg borom këram. ne ku bëgg borom këram mu bëgg la te Meissa ñëpp xam na ne opposition la waaye ku bëgg Birima Mangara la yi nga wax moom amul opposition amul kenn képp koo xam ne bëgg ngaa liggéey soo ñëwee ci boppam ñu financé la waaye ci kàttanu yàlla nga fay ko ci jàmm ñu mën a ñu mën a ràmb joxaat ñeneen bu daay ak bébé ëmma bu bawol benn attention yaroo baax sukkër bi na ko yaroo baax sukkër bi na ko ëmma ngay raam a jogaat na ëmma jogaat na yaroo baax fa mu yegg ëmma sori na yaroo baax ak ëmma yaroo baax nekk noonu ci suuf ngembal ngemb lu vert attention attention Yoro Bakh Yoro Bakh bu mu daan na Bébé Ama Yoro Bakh daan na Bébé Ama waaw nii la Bébé Ama dafa bëre ba sonn li ko Yoro Bakh sëf moo diis sukkër bi na ko mbokk yi làmb yi tàmbali na tey noo ngi njëriñ wanewaat leneen loo xamante ni si bii namoon nanu ko xam nga nit ñi ngi jóge ci weeru koor nekkoon weer woo xamante ni si bii weeru ngëneel la mu ngi dóorante ñoo ngi dóorante waay waay làmm ngi nii ndax xam nga ne namoon nanu làmm Alizé jël na tànk ba ndax da daan boo ci génnee mbër ga doon daan na xale bi dafa man a bëre oh sama yaram daw na Bécaye Diagne waay waay kenn du moom yow li nga sama sama yaram daw na waaye xale yi làmm moo mel nii e bi matul cinq secondes wa wutuñu dara luñu jëmale defal suñu bopp ñu koy liggéeyal suñu li ñu wër rek mooy développement wu Diourbel ñun ñëpp ñu retrouver wu autour de l'essentiel ku nekk li nga mën a indil Diourbel nga indil ko ko ñu tabax ko mu nekk dëkk boo xam ne ñëkk bokk sant ñëpp di gërëm ñëpp mbooloo mi ñëw na neex na samay mbokk teg si nañ waa kër yëli manal kër bu mag Diourbel ñëpp ñëw nañ ko yaakaar naa kontaan laa war a def bi mu nekk quatrième édition bu ñu juddoo ba ko Jurbel ma ñëw ànd sama waa réseau ak samay jigéen. non dafa dawal sama yaram dafa daw parce que mbokk yëpp wuy si nañu waa réseau bi wuy si nañu responsable politique yëpp ñëw nañu ànd ak man mu doon lu rëy ci man. saan loo xam ni ma ngi may encouragé quoi encouragé nañ ma ci sama liggéey encouragé nañ ma ci sama dëkk muy Jurbel ak Touba. Abdourouss Seytu jàkkaarloo nañu ñoo di dégloonte waaw Lac Rose Ngelma sànni na benn coup léegi Lac Rose dóor na waaye Golmarise mi ngi di ko dégg lan mooy am waay waay tey neneen làmb la ñuy wax Lac Rose dóor na Lac Rose dóor na bi jël ko arbitre bi jël na taxaw na sunu kanam Paul Maurice lan mooy xam oh, mbot na la dara amul dara amagul oh, Lac Rose daan la waay waay Bécaye Diagne Bécaye jëlal ma loolu gis nañu lu am tey oh, waay waay Lac waneeti na mbir waneeti na jom waneeti na tey Bécaye xale yaa ngi noonu gis nga làmb ji ni mu mel nii tey jël ba rëy na. sa làmm doo ko mën a saax saaxee noonu gis na supporter yaa ngi noonu jërëjëf mbokk yi kon tey làmb jaa ngi noonu Papa Ndiaye production moo xewle woon fii ci njëréem état Elimane Fall Lac Rose diggante Lac Rose bu ak ki nga xamante ne si bii moom moo di mul maris ngel naa waaye yaakaar naa ne jël ba leer dama xam ne képp koo xam ne nii man ku bëgg jurbel rek ma bëgg la moom jeune la waaye bëgg na jurbel te nag mi ngi liggéey ngir lan jurbel li doxal Jurbel ki lay dox xale la waaye li doxal Jurbel mi ngi ci sport bi mi ngi ci lépp loolu moo tax ma xalaat ci waxtaan ci ak moom mu nangul moo ko dans une semaine la nangu naa bi dans une semaine ndax dañ ciy liggéey pour Macky Sall am deuxième mandat au premier tur ginnaaw yàlla bu ñu sant yàlla julli ci yonte bi ñu ngi sant El Hadj Ndiaye ak madame Ndiaye di nuyu Bekaay Bekaay nag ñu ko yóbbante suñu nuyoo bii ndax suñu xarit la bi la ko ko wooyee wax ko ko dane Bekaay dina ñëw jël ko nu mu rafetee dina ko teg bu soobee yàlla bantamba bantamba bantamba dañuy ndokkeel El Hadj Bécaye Mbaye suma xarit suma doomi ndey suma rak di nit ku baax nit ku rafet dik ko nit ki liggéeyal développement waaye nit ki liggéeyal làmb nit koo xam ne ki sa nom de culture koo xam ne kii am na yar am nay teggin te réew mi am na fu ñu ko teg ñun nag waa Njaareem lépp lu ñu xewlee tubaar fakkaal El Hadj Bécaye Mbaye indi ñu bi génn ko ci bantamba ba mat sëkk ba ñëpp rafetlu ko kon nag tey ji ginnaaw bañ ko sargalee ci weer wii ñu génn ñaanal ko yàlla yàlla guddal fanam ñu ngi koy ndokkeel di ko xamal daal njaareem gépp ñu ngi kontaan ci moom di ko ñaanal yàlla fa mu bëgg yàlla fa yàlla galee di gërëm nag El Hadj waaye di Bekkaay Ndiaye mi mu ñu booleel cameraman la bu sawar boo xam ne bii lépp loo xam ne dafay suqali lamb ba ba am suqal bi Bekkaay nekk tubaab dafa kàll moom la joxe tey jëkkër sa loxo tàllal sa loxo ci kaw ak jàkkaarloo pare bi jàkkaarloo xool ko bu xool joxante la loxo mu ngoog Lac moo jël première édition di Papa Ndiaye tëgg jox ko euh, Maysa Ñing muy première édition Maysa Ñing mu nekk loo xam ne Lac moo ko joxe merci Lac Rose merci Maysa Ñing merci la Jokor mais merci ki nga xam ne moom mooy Papa Ndiaye promoteur